mbooloo mu takku bàyyeekoo ci ay gox yu fasantikoo ci biir dëkk bu tedd bi di Touba te la ci ëpp di ay soxna ñoo ñëw nag ci ngoonuk ajjuma gi juróom benn fan ci weeru janvier 2023 wuyu si wooteeb Touba ci kanam fii ci kër Serigne Touba gi Daaru naan ci njiitu kilifa yi ak taxawaayu commission massification ndaje mii nag ñu ngi koy amal njeexentalu at mu nekk. bisub leeral ndax soxna yi ak collecteurs yi ñoom dañoo ne si gox yi ak quartier yi yor bolo gi mbooloo jiital leen. ñuy laaj seen weer di ñëw di weesu ci compte banque yi Touba Ca Kanam di ko comptabilité léegi nag su at mi jeexee dañ leen dajale ñoom ñëpp càkkute fa commission massification ñu teew Touba Ca Kanam leeral mboolem collecteur bu nekk Touba lu ko tàmbalee deux cent mille ba kara ñuy yegg fam ñoom ci ay millions ñu mën laa lim suñ ko liggéey bu noppi nag kilifa gi nga xam ne moo jiite Touba Ca Kanam muy sëriñ Abibullahi Mbacke mi si amoon na Fadal ñu ne ko nag ngi nii lii leen liggéey ci at mi mu ñaanal leen Touba ca kanam fasantikoo ci ay góor ak ay soxna di amal liggéey bu am solo ngir nag weer wu dee ñu mën a dajale nag koppar yu bëri tàbbal ko ci dëkk bu tedd bi di Touba soxna yi nga xam ne ni nag ñoo waraloon ndaje mi Serigne Bara Mbacke xel ko mu jiite commission massification gën naa indi ay leeral nag ci pexe yi nga xam ne ni danañ ko def ba mën a dajale koppar yi ci biir at mi. ndax jigéen ñi am benn système bu ñuy doxee Touba Ca Kanam ndax jigéen ñi Touba yëpp danoo fasantikoo ci ay natt natt mbootaay waaye natt mbootaay gu day ñëw bokk ci Touba Ca Kanam am na si jigéen ñoo xam dañuy teg règlement intérieur wax ne balaa kenn bokk sama natt mu rey faaw nga bokk si Touba ca ne chaque semaine nga matal ñaar si ay